عليك صلاة الله ثم سلامك فلم أك في درك المنى أتردد عليك صلاة الله ثم سلامه ومن والدي شيخي وما زال يحمد عليه صلاة الله ثم سلامه فعيش بدون الحب فيك مضيع طبيبي قريب هل سقامي تسمع lii ndam la ci senegal parce que doomi Sénégal moo waral ah, nit ñi di ñëw ñun su fekkee wàllu organisation rek la ñun mënuñ saa indi génn wàllu eh, stade bi parce que tey moom damaa xëy di gis nit ñi di dox ci yoon bi ci biir Abuja affaire bi jaaxal ma loo mën a ko ñii fu ñu jigee kenn xamut daal lii mooy wane ne daal bàyyi ci boppam ah, liggéeyam rafet na fii ci Nigéria macha allah nit ñi bëgg nañ ko parce que xam nañ ne bëgg na yàlla bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na jàngale bu rafet rafet fii ci Nigéria ah, kilifa yu mag fi mu toll ñu ngi ñëw ñu ngi xaar ah, vice président bi Nigéria parce que président bi dafa xaw a jàpp waaye yu ebal na ah, vice président bi mu ngi nit ci yoon di ñëw ñaari ministère ñu ngi fii ministère Abuja bi ci boppam ak ministère ki amee affaire budget Nigéria bi yëpp ki nga xam ne moo nekkoon gouverneur Kebbi daaw. te foofu lañ defoon gàmmu bi moo jaloon a charge gàmmu bi yëpp mu ngi nii toog alhamdulilah teew na daaw mu ngi gouverneur ren mu ngi ministre te lii wane ne kilifa yi tamit xam nañ kuy bàyyi te bëgg nañ bàyyi. ñu ngi gërëm sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mahi ak ak ak kattan bu ko yàlla may alhamdulilah yal na ko yàlla dolli wér te yal na yàlla guddal ay fanam muy continuer di ñu ko gis taalibe ñëpp fu mu toll nii. ñu ñi xaar ana xalifa bi ana bi ana xalifa bi alhamdulilah dégg naa ne léegi wàcc na ci hôtelam mu ngi ci yoon di ñëw incha allah moom lañ xaar xalifaam bu nekk Nigéria xalifa Baye ah, Mouhamadou Sunusi ah, mooy ah, buuri Kano mu ngi fii moom toog na xam nga ne moom dafa respecté temps waaw boobu ba léegi mu ngi toog moo ak Cheikh Tidiane moom tamit ak yaramam yëpp xuus na ba ñëw fii nii alhamdulilah lii jërëjëf la ñuy wax. ñuy jërëjëf yàlla jërëjëf yonent bi jërëjëf Cheikh Tidiane jërëjëf Baye. ataytu bi sinwi thumma ahli wa ildazi siraan wa xawla alhaashimiina tajammacu wa xalfi jumuucun yantamuuna li xisbikum يعمهم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأمان فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع بمكة بالمسعى خيف ومشعر ضياء رسول الله للطرف يملع بغوار حراء بالمحصب لا أراه رفيقا سوى الهادي به أتمتع محمد عبد الله أحمد عاقبان بحب الإمام الهاشمي تشبع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نذير ماحي الكفر أروع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي صراعا وحول الهاشمين تجمعوا وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتعوا أيا نفس أدركت الأمان فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع عليه صلاة الله ثم سلامه فعيش بدون الحب فيك مضيع طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما توقعوا محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع أتيت بصنوي ثم أهلي وإلدتي سراعا وحول الهاشمين تجمعوا وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتعوا أيا نفس أدركت الأمان فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع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 مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أطمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى فصلني بحبل لا يرى يتقطع عليك صلاة الله ثم سلامه fa inna fuaadi indaka dahra ajmau alayka salaatu llahi thumma salaamuhu fa ayshun biduuni lxubbi fiika mudayacu alayka salaatu llahi thumma salaamuhu maqaamuka mahmuudun lada alxashri tashfacu alayka salaatu llahi thumma salaamuhu ومن والدي لا زال غوثا يفرج المسلمين وها نحن الحمد لله آباؤنا وأجدادنا خدموا لهذا الدين حتى وحدت كلمتنا وهذا كل من نتيجة أعمالهم الصالحة وقد تقبلها الله فظهرت في أولاد في في الأبناء والأحفاد ونرجو من الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى أن تنمو هذه البركات وأن تبارك فينا هذه الأعمال الصالحة وأن يجعلنا جميعا من أهل الخير da'wati ilayhi wata dakoma zuwa gare shi wal mahabbati fihi saboda sayayya a cikin sa wata akhi fihi saboda yan fa hada senegal wannan ga senegal wa nigeria da nigeria wa ghana da ghana wa kullu biladi da dukkan biladin huna ta haɗu a nan gaba daya mahabbatan fillahi allah da annabi wa dhalika kullu wannan duka ijabatan ijabatan ga alheri ne li da'wati rajulin li da'wati rajulin saboda biyayya saboda mutum ɗaya guda daya lahum shine huwa Sheikh Ibrahim shine Sheikh Ibrahim wanda ta rabu annabi فآمنوا وصدقوه وتعاونوا وتعاونوا معه لرفع كلمة الله وقد ارتفعت هذه الكلمة ونسأل الله تبارك وتعالى البركة والخير ونسأل الله تبارك وتعالى الجنة وأن ينقذنا من النار وأن يجعلنا من أصحاب رسول الله المحبين له ظاهرا وباطنا وبارك الله فيكم وزاد خيركم وزاد فضلكم ورفع مقامكم وحفظكم من كل شر وسوء ويقرب إلينا الأعمال الصالحة وتحببها إلى قلوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وأنا كنت أحب أن أجلس بينكم ولكن هذه الظروف لا تسمح لي بذلك وسأنقل تحياتكم godiyarku gaba daya wa mahabbatakum da soyayyarku gaba daya ila ahli madina zuwa kaula mutanen madina shehu zai san rijalan wa nisaan matansu da mazansu wa ila sheikh ibrahim da zo shehu ibrahim da kansa zai san da godiyarmu zuwa gare shi wa ila sidi ali sise zuwa sidi ali sise wa ila kulli rijali madina mutanen madina shehu yake zai san da godiyarmu zuwa gare shi jazakumullahu khairan Allah ya saka muku da alheri استقبالك استقبالكم الكريم وأنا أجلس هنا وأتذكر بيتا للشيخ إبراهيم ما زال حيا آه وأين برهام وما برهام حتى فنوا في حبه وهاموا فإذا كان الشيخ إبراهيم يقول ذلك فما بالي أنا جزاكم الله خيرا ما شاء الله ملاذ الناس في دين ودنيا بذول بذول